Sall mu bàyyi Ousmane Sonko ci kaso bi mu ko tëj bi yoon nag ñu ko koy ñaan ngir yàlla ci njëkk parce que tout simplement bu ñu jëllalee wàlli politique dund Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi jóge ci ay avocat dundam tey jii cate na lool ñu yaakaar ne ci sama conception man boo nekkee président de la république da ngay yaatu dënn boo nekkee président de la république di nga dégg lu la C'est sa njaboot dina dal sa kaw waaye da nga am obligation yow président de la république pour njaboote ñëpp pour protéger ñëpp nit mun naa bokk ci njaboot gi def na ko su dul noonu waaye yow président de la république ci sa mbaax war nga ko mun a delloosi tegaat ko ci rang yi bu fekkene nak dem nañu ba dundam nara dess ci situation bi kon motax ñu delu encore une fois di talal loxo président Macky Sall diko ñaan ngir mu bayyi président Ousmane Sonko ndax dundam fi mu tollu ni mu ngi ci xottu gerte politique nak buñu démé ba mu mën naa doon ku nekk wax limu mu xalaat mën naa doon xëqante waaye bu ñu yeggee ba ci mbañante loolu beneen façon la te yaakaaruma ne loolu mooy li sénégalais yi soxla jamono ji kon président Macky Sall ni mu koy waxee tout le temps ne politique yëfu gentleman man jàpp naa ne moom gentleman kon président Macky Sall bëgg nañu nga. teggi loxo Ousmane Sonko parce que xam nañu ne sa doole sa influence sa mën-mën mën na sauver dundu Ousmane Sonko et bir na ma ne du ngeen ay non ay adversaire dong ngeen ci walu politique bi ci desit li ñu ñaan ci Ousmane Sonko ñu ngi koy ñaan ci ñeneen ñoo xam ne caabi da leen a féete ginnaaw bari nañu junni ak juróom-benn fukk lañu ak benn waaye dañu ci lim ñenn ñi gën a siiw rek teewut ne ñi ci ginnaaw it fàttewuñu leen professeur Bouna bu lycée bu Gassane Cheikh Bara Ndiaye Bassirou Diomaye Ami Dia Fadilou Keita Jamil Sané Kaba Diakité Pape Abdoulaye Touré mi nga xam ne lott na jamono ji Hannibal Djim professeur Cheikh Oumar Diagne Karim Xurum Xaq nit dof ak oustaz Assane mi nga xam ne ci sama njaboot la bokk parce que ci groupe bi nga xamee ne dafa bokk ci holding bi ma jiite muy Boygu Corporation moom oustaz Assane Seck ci seen TV la nekk ñu ngi koy ñaan président mu bàyyi ñooñu ñëpp parce que ku ci nekk lañu ko fa tëjee mooy xalaatam gi mu wax ci ni ñu war a defaree réew mi te li ma biir mooy ñooñu ñëpp ku ci nekk yéeneem du lenn lu mooy Sénégal baax kon nag président comme yow yaa féete yow la suñu borom jox lenge yi ñu ngi lay ñaan nga teggi sa tank teggi sa loxo ci dossier yooyu noné yit lañu biré ni ñi ci dess ñep buñu accélérer procédure yi du kenn ci ñom ku ci justice sénégalaise di jàpp pourquoi parce que bir nañu né li len procureur de la république topé mooy waxi nax saxandang ya mu toppe woon Juan Branco te mu jut kon ñu ngi sakku moom président ni ko yàlla def ba tek ci mom sas wi mu tek ci mom mu muñe ko liko ñun jaam yu ndaw yi def parce que nak lolu mooy cër bi suñu borom jox lu jëm ci walu dundu gi ku ne xam na ne dundu gi metti na lolu ku ne xamna ne rew mi metti na lol donte digon nañ ñu fi ne dinañ wañi njëg yi waaye dafa melni safara ju jur jangoro la tay ji la gëna ay gor gor lu yi tay lañu gëna son ndax gis nañu ne yokuna. yi rawati na li ñi jëfëndiko bis bu nek yegg ba ci sax waye bi ba tay ji gouvernement bi fi nek

xam nga kon loolu metti na buñ ko waxee nag xel yi mun a tey parce que ci Sénégal li ñuy bay ci soble ak mu nekk toll na ci quatre cent mille tonnes ñeenti téeméeri junni tonni soble la bay ci suñu jàmbaar yi nga xam ne ñooy bay soble moonte de li Sénégal di jëfandikoo ci wàllu soble weesuwul trois cent mille tonnes ñetti téeméeri junniy tonnes kon borom bopp yu baax yi bu ngeen calculer di ngeen gis ne am tonnes yoo ne différence kon waruñu woon di dem di soble di importer di indi mais bu ñu ci di importer c'est parce que li ëpp ci li ñuy bay ci soble bi dafay ñu gas ba mu xóot daal di koy suul ak xol la yi di dans la zone des et pourtant ni mon ko waxee woon surgelé amna. quand kon kay soble surgelé war nañ ko mëna def ñun war parce que ci fi entrepôt yo xamné ko tef ci ngir denc soble bi dans sur la route des Ñukay dans la zone des kon cuune ak dële waneeti nañu ko ci wàllu woowu waaye yamu fa dañu doon wax ne ceeb mën nañu góorgóorlu ba dootuñu wuti ceeb bitim réew mooy autosuffisance en riz xool leen chifre yi tey jii dans la vallée du fleuve Sénégal nit ñi seen ceeb mu ngi yàqu ay gunóor a ngi koy song ceeb bi mu ngi nëb dégg ngeen ko ci information yi moonte dañu waxoon ne ci sabu ci diir bu gàtt danañ am autosuffisance 2013 bu ngeen un yéen journalistes yi di ngeen gis ne on était aux alentours de 640 000 tonnes yu ñu doon importé jëli ceeb bitim réew indi Sénégal 2022 bu ngeen gëstoo di ngeen gis ne importé nañu lu ëpp un million de tonnes ci ceeb dañoo autosuffisant wala dañoo dépendant je crois que ku nekk ci yéen am na réponse bi mais loolu grawul dañoo yegg ci wax ñu ne ñoom produire nañu ci Sénégal un million deux cent mille jàpp trois cent mille tonnes ci ceeb padi waaw ku doon importer

mu di diwliñ ak suukar ci wàllu mbay ba tey xam ngeen ne ñu ngi ci mbay mi waaye baykat yi am nañu njàqare dale ko ci Bawol jàpp Saalum Kajoor jàpp Njàmbur dem ba ñombaato fu ci nekk tey ji seen njàqare tey la gën a wulee ñaay donte waxoon nañu ne am na cent milliards yu ñu teg ci taabal bi ngir taxawu baykat yi yëgg nañu ba wax ne sax dañuy def mécanisation tey jii la nit ñi gën a sonn parce que bu fekkee ne da am fas fas wi amoo ngooñ bu baax boo ko jox dana lott lool kon am na ci liggéey boo xam ne moom fas wi du ko mate tey jii lañu yëgg ci di joxe semence mooy jiw nañu koy defee dafa wute ci gox yu nekk am na gox yoo xam ne carré lañu leen di natte am na gox yoo xam ne par bopp nit ku nekk lañu lay jox yegg nañu ba ci joxe bopp ñeenti kilo gerte ak liibar cinq cent grammes mooy liibar liibaru engrais pour nit ku nekk waaye faw ñu nangu ne am na joyanti akub ngëneel goo xam ne dugg na ci mbay mi ren jii jëm ci wàllu engrais donte ci wàllu motorisation mécanisation baykat yi gisuñu waaye bari na ci gox yu fasantiku yoo xam ne engrais bi am na ci ngëneel goo xam ne ministère de l'agriculture def na ko ci lu ci mel nii saabu juróom fukk kilo ci engrais bi jëm ci gerte gi ñu ngi koy jaaye huit mille francs ci yenn zone yi noonu la ko état bi joxe engrais bi jëm ci mboq mi ñaari junni ak ñeenti téeméer douze mille bi jëm ci dugub bi ñaari junni dix mille bi moom dana dem ba ci ñaari junni ak juróomi téeméer waaye nag teewul tey jii la baykat yi gën a amul njàqare ci nawetu ren bi parce que jàpp nañu ne dañu leen a bàyyi ginnaaw boolewuñu leen ci priorité yi jafe-jafe yooyu yëpp nga xam ne nag sénégalais yi ñu ngi koy dund mooy li ma wax sànq nga lawaay président makisal Sall bul jël yat bi di ko dóore askan wi parce que pousse nañu la ba ci miiru wis bi ngir nga dellu ginnaaw ci wàllu troisième mandat defuñu lu dul pousse la ngir nga jëfe li constitution du Sénégal nam ci walu politique juróom-benn weer yi nga xamné mom mo dess ci mandat Macky Sall ci la ñu gis Barza wala Barsaq wulee ñaay daal di recommencer wat motax ñom ñu wara xolat sen bop parce que buñ la joxé 44000 milliards pendant 12 ans nga dem bay jéxal nit ñi tak sen dëbës.

gouvernement bi du mom moy régler problème mu Sénégal yi nonou la it ci ña ko fi jitu won ku ci melni ni Abdallah Dionne nañu li ñu mën wane nañu senu télé ci Sénégal kon li wóor Senegal sénégalais yi nañu jël sen responsabilité ngir jëlé fi nak Barça wala barça

ni ko document bi nous lu ci mel ni kaw yi politique de jeunesse yi ñuy def Sénégal yépp dañu koy jagleel ñi jàng ñi ak borom diplôme alors que ñi jàngul ñi jaar daara ak ñi nga xam dañuy taaba taaba ñooñu ñoo ñi nga dañu jaar ci diplôme kon politique de jeunesse suñu dañ ko wara Mata yaatal motax ñun ñu ne ngir moyu gone yi jóge dekk kaw jànqe suuf wala euh, nungu siin may wax ak dem suma ben xarit ba tuddal ko nungu siin mu ne ma nungu siin moy kaso ma ne ko déedéet nungu siin dekk la ma ko nungu siin dekk la nungu mu ngi à 3 km de Makka mais mu ngi à quarante cinq kilomètres de Paskoto pas non Paskoto waxuma Paoskoto Paskoto Paskoto moo nekk Koumpentoum Paoskoto moo nekk Nioro donc ñaari dëkk la bokk donc Ndungu Siin dëkk la ñooñi da ngay gis ay gone yu jóge foofu ñëw Ndakaaru yor marchandise bu matul ñeenti téeméer Nous ne loolu pour mu dakk faw ñu organiser baykat ci ay coopérative ni ko Mamadou ja xalaate woon dajale leen ngir lu ñuy def mu jaar ci coopérative bu ñu ay machine ci coopérative bi lay jaar bu ñuy joxe suuf bi ci coopérative bi lay jaar engrais ci dans chaque commune rurale nga avons Sénégal am 300 communes rurales ak danaka 115 communes villes ñu jël communes rurales yi privilégié leen fexe ba baykat yi nekk ci commune rurale yooyu ñu organiser leen en coopérative moyen yi ñu wax ne dégager nañ ko ñu fexe ba coopérative yooyu jot fu ci nekk ñu organiser leen fexe ba am semence yoo xam ne semence yu baax la waxuma gerte pëpp goo xam ne bu ñu ko joxee nit ñi bu ñu ko bu ñu ko sax yëf fi daal di naax saay ñu fexe am matériel bu baax waaye mbay dong du mooy joxe xaalis boo bayee bu nit ki bayee ba noppi da ngay fexe maîtriser la chaîne ngir mun transformer li mu bay mooy li may wax tout le temps kilo gerte baykat bi da koy jaayee 250 mais boo demee ci super di ci ndakaaru booy jënd sachet gerte 100 grammes 500 wala 600 francs lañ la koy jaayee luy différence bi transformation

moy dundé inondation chaque année ci lañuy door pour am luñu Sénégal rek ngay gis fonctionnaire di nek milliardaire Sénégal rek ngay gis ab politicien nek milliardaire bu ñu ci situation y ci réew réew momu day toskare réew momu ci pauvreté dong lay nek motax nak ñom ñu comprendre né jeunes responsabilité di jël réew mi di ko def sa moomeelu bopp ñi nga gis ñuy tëb di dal yépp lu ci bari ci ñoom naan candidat lañu jubluwuñ ci lenn lu dul wut fu ñu làqatu rek ngir li ñu def ci njombe ci réew mi dañuy continuer di def politique parce que xam nañ ne li ñu duppee anti système ñun ñi nga xam ne lépp jaar ci yoon la soxla bu ñu ñëwee ñoom ñëpp dinañ rëq seen digg comme nag mag moo xam ne xam nga li lay yor je disais que quelqu'un comme Ousmane Sonko il est en prison c'est pas Macky Sall c'est pas la volonté de Macky Sall c'est le désir du système c'est le système qui l'oblige aujourd'hui à mettre en prison et à euh, nous regarder traquer tous ces gens qui ont cet esprit

je koy wax tout le temps 14 bari na ci 14 ans nga tok ko ci nous bo amé bac wax ma lo man nous dara bind ak et ça c'est le système qui est à la base pourquoi parce que nous nañu nous toujours ci dépendance nit bu fekkee ne dafa war a jàng quatorze ans def cycle am bac jàngaat cinq ans muy ñaata dix-neuf ans boole ci sept ans wala six ya nga duggee école daanaka màggat nga li ëpp ci sa dund yaa ko passé ci ay banc alors que yeneen réew yi fexe nañu ñoom ba seen système éducatif ñu sopparñi ko boo demee ba classe troisième mooy fi ngay defee BFM commencé nga di def formation professionnelle et lolu japp nañu né bokk na ci solution yi nga xamné war nañu ko dawal auto emploi xiirtal nit ñi ngir ñu demal seen bopp bari na ci yeen ñu jàng ba noppi boo amee diplôme maire bi danaan amagul liggéey de parce que ci subconscient wu suñuy wayjur ñun nit la war a liggéeyloo alors que war nga mun a liggéeyloo sa bopp tey jii bu ma le Sénégal amul politique d'innovation Montez, il ñi fi a di site internet bari ngeen ci ban encadrement la ñu pour rien. ban liggéey l'état état pour que li nous nekk niche créer des millions d'emplois dans ce pays le Sénégal n'a pas de politique d'innovation ñun une politique d'innovation tay bo gisé ay yango ay eh, yasir nga gis itch mais je donne principalement yango yasir Sen ay réew nigeria ak Maroc dañu am politique d'innovation am ay milliards yuñ ci def gis nga ñoom liggéey nañu ci sen réew ba ñu ngi leen di wax ne dem leen ci bitim réew ngeen dem conquérir ñu ñew Sénégal di fi def liggéey bu démé non monté des bu dee Express ci logique innovation la joni joni ci logique innovation la wari ci logique innovation la mais ñooñu comme réew mi amuñu fi nday ak bay amuñu fi badjal bu leen rogganti dañuy fexé nërmel le système revient parce que c'est ce système qui ne veut pas que les choses changent c'est ce système qui ne veut pas que le Sénégalais bi dawal Jakarta mu war a dawal beneen oto boo xam ne moo gën a bakkane parce que dañu bëgg nit ñi nekk dans des logiques de dépendance loolu laay wax tout le temps suñu baykat yi pourquoi baykat yi bariwuñu ci ay millionnaires moonte boo demee ci réew yi ñu dendal baykat yëpp dañoo am alal ñun suñuy baykat dañuy ñaan di tàllal loxo pour ñu jox leen jiw dégg ngeen léegi li ma ci wax di ñaan pour ñu jox leen semence pourquoi

yaakaaruma ne ci juróom-benn weer di nga fi def lu nit ñi di dare seen yi waaye rek ma koy ñaan moom président Macky Sall ci stabilité dal jam gi réew mi soxla moom président Macky Sall nañu ci jàppale parce que dal googu la ñuy woote moo tax ñu sakku ci moom ñi ñu tëj ci kaso yi waay waay na leen génn parce que Sénégal jàmm la soxla Sénégal

mooy xeex amul victoire boo xeexee ak ku la ëpp doole da nga dof parce que da ngay que biir na leneen dina lu dóor ba sëlam la boo xeexee yaw koo ëpp doole amul victoire gàcce parce que yow xam nga ni kii yaa ko mën mais beneen bi ci gën a garaaw mooy xeex ak koo tolloo doole parce que boobu wóoru mun na laa dóor ba sëlam la moom it kon li ñuy sàkku ci président de la république. moy mu yaatu deun la Idrissa Seck xasse won ci dilatel poitrine comme président nga ñaan nga yaatu deun ngir ji ñu bëgg ci mi dal ji dem inshallah en avril 2024. nga jox ñu réew mu ne ñum réew mu comme nañu parce que nag sénégalais yi ñoo Mm, lii moo doon li ma tënkoon euh, ci euh, document bi ci déclaration bi amna ay question allez-y Ousmane Sonko seeti euh seeti yakarna yaakaar na fi nek ni même ci ñi ko mais pas plus tard que légui rek amna qu'il kilifa gu nek ak go ngoo xam ne euh, envoyé nañu SMS mak mom et l'idée euh, man ma ko déclenché c'était de voir naka la def naka la wér yaramam def parce que li ma waroon wax ni ci walu wér-gi-yaramam dama soxla lu dëggal limay wax parce que dama nek nit ko xamne duma du wax ci ngelaw donc lolu mang ngi ci rassurer euh ci walu santé xam nga ñi jité réew mi bu sen bop metté Maroc la ñuy si nous France la France buñu bëggé opérer Amérique alors que nous am lépp ci alal maa koy l'autre jour hémodialysé xam nga Sénégal ñaata presque un million ci nit yoo xam souffrir ci insuffisance rénale xam nga ñaata centre moo am Sénégal 25 te hémodialysé da ko def gën a ñaari yoon ci semaine te daf lay heures de temps ak bu mais li gëna a du Maroc gi nekk suñu quatre centre mais loolu xam nga centre 30 postes ñaata nga ciy def ci millions nous avons un programme, amna avons ci pour les hémodialiser. Nous avons un 100 centres. le budget varie entre 15 et 20 milliards. Mais choses. Il y a une prise en charge pour émodialiser. Séance, bi, médicaments médicament, il est gratuit. Mais il y a un petit parce que si on a une insuffisance rénale, dans la d'autres nous avons une allocation pour savoir qui est mondialisé au Sénégal. Nous avons donné l'eau, thé, dico, dimblico, verboudé, comme Nico France par exemple. Vous avez 500 000 diabétiques au Sénégal, 510 000 nous avons diabète. Si 510 000 nous avons diabète, pour te dire que ce gouvernement à mon 10%, 51 000, nous sommes insulino-dépendants avons savez combien de subventions l'État 9 kg, 300 millions. Nous, nous, l'insuline, nous pouvons rendre gratuit. C'est petit Sénégal. Mais depuis que nous avons qu'il y a tout de prévalence du diabète, il 10,4%. Alors que le taux au niveau national, on est à 3%. Nous, Japonais, nous avons un centre

li ci ëpp ci ñoom ay nit ñuy liggéey lañu dañuy liggéey di am xaalis mais xaalis bi ñuy am mënu leen a jariñ ci seeni soxla kon li war mooy fexe ba créer liggéey ci réew xam nga créer liggéey dafa am solo damay wax ne gis nga téléphone bii man su ma jëloon Sénégal incha allah à partir te joxe naa date bi je crois que c'est à partir du 30 juin 2024 dama a benn produit fini de le Sénégal mais benn produit brut dotu ko génne Le téléphone si je koy il def boîte monté ko au Sénégal Je danga may le téléphone nous ñu dépiécé avons une société qui monté téléphone au Sénégal ma boîte parce qu'il faut ma société Diko ko imprimer pour ñu duggal ko ci pour mën ko jaayé Sénégal ba ci gerte gi gerte gi bo démé ba chinois bi di jéggi ñëpp légui mom chinois bi da ngay dem nganda wala nga dem jama gaajo wala nga dem gent paté fekk fa chinois bi mu mu mu mu sol silet mawo yor xalisam néna day mbapati Je dis, c'est une catastrophe. Il nous faut maîtriser le circuit, c'est-à-dire la chaîne de valeur. Il nous faut un circuit court qui permet, de transformer. nga y a transformer yow y a jënd si gi lan nga soxla da koy transformer ji transformés. jëndee gerte gi boo ko xolliloowul Sénégal transformés. dem xolliloo ko waa bitim réew transformés. kon fexeel nga xolliloo ko ñun suñu transformés. donc da nga koy ci préparer ko ba mën am matière première bi nga soxla ñu doog ko nango jaay doomu Sénégal mo la koy jaay waye yow chinois bi wala indien bi dootoo duggati bir euh, sànca ba manjak nan da ngay wuti xooxu darkase un État doit être stratège un État doit être intelligent et c'est ça qui permettra à la jeunesse de trouver du travail moo tax ñun ñu né menuisier si vous da ngay vous ñuy nax menuisier yi nan leen commande publique mais commande publique c'est epsilon par rapport à 1 million de ménages Vous ménage yi sénégal 1 million de ménages ménage yi nekk ci sénégal mais ñooñu dañu soxla nous dañu soxla meuble mais bu fekkee ne da nga bàyyi menuisier nga encadré leen mêmes admettons ne da nga financer ok mais nga bàyyi chinois bi de produire à un rythme industriel di ñëw di lako ko Sénégal est-ce que produit chinois bi mun concurrencer produit menuisier bi nek ci euh, canal face bi mënul nek